mooy liy xew ci média yi xëy na joxuñu ko importance lool waaye léeg-léeg am lu muy jur moo tax ko teg ci xel ak ci sago te mooy taabal yi ñuy organiser ci yenn chaîne yi bu teyee ñu ni nañu invité tijaan yi beneen ñu nañu invité murit yi beneen ñu nañu invité xaadir yi fekkee ni ñi ñuy invité ñuy war a wax boroomi sago lañu duñu wax luy provoqué mën nañu wax lu rafet rek ba keneen ak keneen dugg ca parce que dafa am lu ñu bokk lu ëpp tariq mooy yàlla ak yonent ëllëg yowmal qiyaam ku dekk ñëw ci sunu kanamu borom nan ko ana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif yàlla dafay taxaw di la xool rek keneen jóge fay ñëw ci sunu borom ne ko ana Serigne Touba yàlla dafay taxaw di la xool rek keneen ñëw ni ko sunu borom ana limaamu lay yàlla dafay taxaw di la xool rek keneen ñëw ni ko sunu borom ana buukunta yàlla dafay taxaw di la xool rek parce que ñooña fa nga seeteeg ñoom la nga war a def pour yàgg ñoom bu ngeen ko defee dossier yi daf lay jiitu ci